làmb yëpp ñoo ngi koy xaar le 5 ak le 12 novembre incha allahu rabbi fii ci arène nationale tey nag ñu fekk si Modou Lo wala boog écurie jàmbaar mu na ba pare ñu war waxtaan ak moom ci face à bi wàccaay bi ndax yaakaar naa ne fan si gërëm Modou Lo moom foo dem ci àdduna bi rek ñoo ngi fa waaye nag Eumeu Sène nee na moom bokk ko kenn Tapha Tine nee na bawal bawal yaa ngi fees dellu Serekunda Modou Lo lan lay wax maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la waaw aouzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alaaji ngi lay fay di nuyu internetu Lutte TV yëpp ah, ak ay téléspectateur am waaw vraiment di am contentement bu baax ñëw toog fii waxtaan ak yow ci programme bi nekk suñu kanam incha allah. programme boobu noonu mooy le 16 septembre incha allah rabbi euh, Luc Nicolaï en ko moo tëgg sa combat ak Ama Baldé waaye mu ngi war a liggéey tamit ak waa Alburax Events Baye Ndiaye nekk ci bopp bi ngeen war a def seen face à face Gambie. sa diggante ak Gambien balaa ñu ñëw ci face à waaw su ma diggante ak Gambien moom wax dëgg yàlla gëm naa ni ma mel Sénégal fii noonu laa mel Gambie parce que saa yi ma fay dem dañ may tertu ñu def caravane bu mag ma am fas fan club bu mag nag muy ah, génération xarañ ah xarañ sans frontière bu Gambie génération xarañ di xarañ famille nag bu Gambie Pape Diouf nekk président bi ak ay membres am d'abord dama leen nuyu bu baax a baax xam nga. di leen wax tey ñoom ñoo ay parce seen dëkk la ñuy ñëw d'abord Gambie xam nga di leen nuyu bu baax di jiital Pape Diouf di wax nag incha allah ngeen xaar ñu ngi ñëw foofu la 16 incha allah nara a def foofu doom incha allah. Mm-hmm. kañ nga yàgg na <laughs> yàgg na yàgg na xam parce que comme dama am fii fan club bu mag muy génération xarañ. Mm-hmm. léegi nag ci région yi yeneen dëkk yi waa ci ay Gambie Mauritanie yëpp dañ fa ay représentants mm-hmm. am naa bu Mauritanie. am na bu Gambie ñooy xarañ famille Pape Diouf di suma grand bu baax jiite ko xam ma chaque combat dañuy def ay bis yu mag ñëw fii nekk fi ay jour man tamit lu xew lu ci bari programme damay dem foofu dem nuyu juleen après combat ma dem remercier leen lu bari. ba tax na ma Gambien yi du tey vraiment. nga def ay déplacement dem seeti sa euh, fans même ay programme ndogu parce que wax dëgg yàlla fans club yi ay jàmbaar lañ xam nga yamuñu ci combat am rek ñu ñëw. dañuy def foofu ay dons yu bari même chaque koor dañuy rey nag def ay dons dem ci daara yi ñoom seen parce que yu bari su ma nekkee fii sama temps may ma ko damay dem jàppale leen ci loolu. vraiment ñu fay def programme yu bari yu mucc ayib daal xam nga ba tax na tey ñoom seen bis rek comme li ma wax rek ñoom ñoo ayee maa ngi dégg nag ëmb seen naan gàmm bi du ko xëccoo kenn non moom <laughs> dafa wax lu ko neex rek waaye gàmm bi moom def naa lu fa am kenn amu ko fa. vraiment liñ fa am kenn amu ko. tamit ni mu ko seqal tamit ñoom ñaar moom tamit neen du ko xëccoo kenn ndax nee na ah, sere ko na xumbal rek dañuy xumbal rek waaye gambi ma dañuy xumbal rek gambi li ma fa am ci ñoom kenn amu ko fa vraiment. leen di wax ñoom tamit ñu pour ñu waajee ko date bi nga xamante ne moom mooy la si. waaw di leen wax comme ni ñu koy defee chaque fois rek xam nga kuy jugee gambi chaque fois ba fii di ñëw déplacé wu ak coono yi ci nekk yow nag tey nga xewle ñu war la fekk si. defe naa lépp dina yem dina mucc ayib incha allah di wax leen rek ñu nekk ci préparation yi teertuñu comme ni ñu ko daan defee chaque fois ñu def gàmm bi doom ñëwaat fii incha allahu taala. fusion bi am ci diggante Baye Ndiaye ak Luc Nicolaï Albourakh ak Luc Nicolaï en ko loolu lan la mën a andi lam waaw di wax rek kenn mën ñaar moo ko dàkk xam nga Luc Nicolaï en ko xam nga kii bu mag la nu mu tuddati structure bu mag la Albourakh tamit. macha allah di structure bu mag ku nekk xam na jéego yi def ci làmb ñoom ñaan nag bu ñu booloowee moom beneen affaire lay doon vraiment xam nga ba tax na ñu ngi ciy séntu événement bu rëy xam nga lépp jaar yoon incha allah te gëm nañ ni na ci am incha allah parce que tamit mari ji bëri rek xam nga macha allah am nañ doy boobu quoi. ba tax na daal ñoo ngi séntu lu rëy lu mag incha allah di wax na ko Sénégal préparé xam nga àdduna bi diaspora beeg ñëpp ah. waaw ñu waajal bis yu la incha daal bu soobee yàlla waaye. Pape Diouf mi ñu mi ñu jël mu war a yëngal guddi googu noonu neex na la wala yow da ngaa bëggoon ñu gën ko ah non mais xam nga làmb rek ay yëfam moom comme yooyu mënu see ñàkk te dina galaa wax. dina galaa nit ñëw lekk xam nga. yaa ma gën a xam waaw des fois yëngatu xam nga mënu see ñàkk. ba tax na rek daal jàpp nañ dina neex comme ni ko defee fii rek ah def nañ ko fii Sénégal du benn du aw bii nag ñu war ko yóbbu Gambie te Gambie macha allah dafa bari sénégal trop ba pare Gambie Sénégal benn la waaye Gambie Sénégal benn la te xam naa ñoom namm nañ genre yooyu noonu ba tax na xam naa buñ ñu ko yóbbee daal dina dina gën a sax gën a neex Sénégal. waaw dina gën a nekk bu nekkoon Sénégal c'est sûr. yow demandé ci Pape yi parce que kii Tapha Tine moom nee na na ko waajal wàcc ba ci suuf bi <laughs> ma seen demandé ne yow lan ngay lan ngay laaj ci Pape. waaye wàccul de ci ci milieu bi la nekk <laughs> bu wàccee du jógaat de <laughs> waaw oh. bu naan wàcc ba ci suuf bu wàccee ba ci suuf du jógaat de ah Badou. waaw da xumbute Dakar rek ah affaire yi moom mu ngi noonu Dakar Lamine yaa ngi reere lan la. Koumba Dagane da lay ree faram loo koy laaj par rapport ak face li ma koy laaj rek li ma koy laaj Lamine yaakaar naa ne tey jii ñu ngi toog ak le roi des arènes Modou Lo li ma koy laaj rek mooy nga nekk roi des arènes jëlee ko di Pikine di dajawaat ak ay doomu Pikine mbër mu naan Ama Balde nga daanoon magam di Eumeu Sène tey jii nga ñëwaat biir pikin mayaat seen rak revanche loolu lu tax nga def ko ban ambition la ci am ba may Ama Balde revanche. waaw ni moo koy waxee chaque fois rek xam nga làmb moom yemul ci Modou Balla Eumeu Gris Tapha Tine comme ni may wax chaque fois loolu lu ma yàgg yàggoon bëgg la ma wax suma yàlla may ma jël couronne bi dama bëgg bëri samay morom ñooñu dama leen wax samay rakk wala yooyu samay morom lañ bis nga ñoo bokk benn génération ku ma ci jiiroo ci làmb benn at lay doon ñaar xam nga ba tax na ñu ñoo bokk benn génération xam nga ba tax na làmb ji dafa war a ubbeeku xam nga dafa war a ubbee moo tax sama bëgg-bëgg la woon moo tax ba mu bëree hésité wu ma dem jël samay moroom pour ñu bëri. mais choix bi ci Ama Baldé nga njëkkee ko ci moom choix bi nga njëkkee ko ci Ama Baldé te yow nga opportunité waaw choix bi nga njëkkee ko ci Ama Baldé te amoon nga opportunité bëri ñëpp amoon nga opportunité bëri ku la neex mais Ama Baldé mi coow li gën a bari ci moom nga ne man Ama Baldé mi moom a gën a arrangé moom laa gën a bëri loolu lu tax loolu. waaw parce que dafa def ay preuve am dafa def ay preuve am xam nga si tey fu mu war a yegg si tey mbër am na lu muy def amul kenn ku koy mën a bañ mais juste comme ni ma la rek mbër la def ay jéegoom man it bëgg naa affaire yi gën a large moo tax ma décidé woon soo yàlla defee ma jël roi des arènes damay dugg ci catégorie boobu bëri ak ñoom pour ubbi affaire yi loolu kese la ay mais du ay choix lii wala naa non suurul woon moom it nekk beneen moromam ki nga xam ni mu ngi ci posture bu baax liggéey na ba egsi loolu moo tax ma choisir ko. damay gis catégorie boobu ci ngay gën a nekkee à l'aise Modou Lo di bëri koo xam ne mën na wax ne moromam la tolloog moom taxawaay épreuve de lépp daal di tax tolloo daal nga xam ne da nga waaw lépp waaw foofu tamit la beneen calcul la foofu foofu beneen calcul la mais foofu loolu lañ ci a xaar ah xaar muy bëri xeex daal comme luñ ciy xaar rek xam nga làmb la tey de comme li nga wax dañ jógee Pikine war a delluwaat foofu dégg nga leen seen staff yi ak wax ju bari ji xam nga mënul ñàkk làmb la bu neex lañ fay séntu incha allah muy xeex ak bëri yëpp bu jour baa nag yàlla may ma dem incha allah le 5 novembre ñun loolu la ñu ñaan mais li ñu war a nekk ñoo gis na ñoom communication bi ci ñoom dafa am doole trop ñu bëgg bés bi trop ñoom jàpp nañ ne tey jii Modou Lo mënut a duggaat Pikine daan beneen bër. non ay bëgg bis bi gënuñu koo bëgg xam nga rek <laughs> samay gars lañ quoi xam nga du xeer yi daal mm. mais daal xam nga dañu gën a rëy làmb di wax rek gënuñu bëgg bis bi vraiment. affaire bi moom bëgg dara du ay ne ci di wax di wax di wax rek làmb la ay nawle lañ nañu respectante ba bis ba lu ñu war a jëflante ñu jëflante ko j'ai compris ñu bëgg bis maa ngi ko gën a bëgg téeméeri li yoon parce que lii yàlla teg sama loxo dama ko bëgg a wale làmb incha allah waaw dégg moom Modou roi des arènes da ko bëgg a bàyyiwaale làmb soobee yàlla incha allah lu kenn mës sa def ci làmb loolu laa bëgg incha allah yàlla nañ ci yàlla jàppale ah mooy ci li ñu fekk rek gannaaw yàlla suñu borom muy liggéey sabablu te ñoo ngi ci liggéey yi comme nu ñu waree daal comme ni nga ko daan defee rek ñoo ngi ci am yaakaar bu baax nag ci li ci def ci li ci des incha allah.